allez Apoulaye ñu dem ci l' observateur li mu xëyee tey jilee ci euh, talaata bi ci xëtam bu njëkk l' observateur euh, Macky les lenteurs dans les prises de décision euh, diagnostic d'un retard à l'allumage à l'origine ñu ne ay erreur de jugement ak bañ a créer ay frustré ñu mer ak crise d' autorité bi nga xam ne am na ginnaaw ba président Macky Sall ne du bokkaat ci jongante bi ñu dëgmal mi ngi ci page 3 euh, bu journal bi lee euh, kii di leader bu awalee di Abdourahmane Diouf moom am na benn interview bu mu def di wax li ko naqari ni ñu dakkalee caravane am euh, mbirum parrainage yi Ousmane Sonko remaniement bi loolee lépp dénk na ko suñuy naataangoo l'observateur ci euh, page 5 la financement ngir innovation ci secteur de la santé maanaam wér-gu-yaram grand cœur pour des pour des challenges à 25 milliards de francs CFA plaidoyer bu président Macky Sall ak engagement yu Bill Gates euh, spectacle fou bu Youssou Ndour démb la woon ca Diamniadio ouverture bi mi ngi ci page 4 et puis bi ab reportage la bi retour à lilo aux ñetti at ginnaaw benn jéyee bi fa amoon euh, ñi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a rëcc ba léegi yëf mi ngi def seen xel kii moom nee na émotionnellement je ne tiens plus nee na sax dafa ñàkk liggéeyam ndax li mu dund foofu le lii euh, affaire détournement 1,5 milliard de francs CFA la la très mauvaise nouvelle qui retient les deux responsables de la poste en prison ak leneen adjoint au commandant de la brigade routière de Koumpentoum ci euh, MDL chef Chérif Diary Sow moom nag benn minicar moom moo ko mbëkk mu ñàkk bakkanam euh, ci wàllum tàggat yaram itam l'observateur ñëw na ci football sans club depuis le 1er juillet 2022 Saliou Ciss euh, mel ni carrière daanaka dafa taxaw demul dikkul ndax def na at ak lu topp ñu ne amul club mi ngi ci page 12 bu journal l'observateur ñu des ci wàllum tàggat yaram ba tey ak record xool li mu xëyee tey tamit ci mardi bi le octobre match amical Sénégal Cameroun rassemblement à Lens les Lions ont livré leur premier galop hier ci page 6 bi la forfait Jackson remplacé par Sima Gana et Diaw sont dans le groupe ñu gis itam sélectionneur bi di Aliou Cissé moom ak Cameroun mu ne deux et le Nirvana euh, leneen itam ci wàllum football Besiktas attaquant euh, camerounais bi di Aboubacar l'éternel sous-côté Euh, page 9 la nekk maanaam moom daal dafa mel ni dañ koo néewal tuuti ballon d'or à trois semaines de la compétition Mbappé et Haaland tourne au ralenti Kalidou bali capitaine des Lions nee na moom ni il est vraiment mieux mentalement ci wàllum xel bi daal ça va beaucoup mieux c'est à lire à la page 5 du journal Record Record ak l'Observateur ñaari quotidien yi groupe Futurs Médias di édité ñu jàll ci. Euh, ah, ndax ko ndax la koppar yi. pétrodollar <laughs> wax nga dëgg de jege jege makkatal mu karam. di poche bi bu feesee moom doo xalaat dara. di jaamu yàlla ci ni nga ko bëggee. Mhm. am koppar yu baax. ça c'est ah, di def li nga xam ne moom nga bëgg muy sa passion muy mhm. football. Mhm. Ah,